essayé Ablaye Wade génn la génne Ablaye Wade Ablaye Wade ko xam hmm. tey jii ñu dàq ñu ñun kon lan moo xew yaa hmm. problème na askan waa Sénégal posé wu ban problème la lii ñuy taxawal nii lan la am hmm. lu tax Abdoulaye Wade ma nga xamante ne muy le grand maître njëkk a génn ak njabootam lu xew lu mu dégg lu mu gis luñ ko wax ba mu dem point d'interrogation tey jii ñu ñëw tey ñun dañoo dàq encore une fois il faut askan wi xam ne ñun dañoo dàq dañoo ne signature sous réserve amul. xalifa mhm. Sall wax ko en tant que ancien maire de Dakar. Mhm. bu fekkee ne nag da def si signature sous réserve da nga koy dindi wala yaa xam. Mhm. loolu mooy génnal. ñu am jom génn. léegi nag fi ñu jëm. xam nañ ne mosuñu xalaat ni day fay yomb. parce que nag ñu wax ko ak ñu bañ ko wax. ñun suñu leader dafay déranger. xam nga dama bëgg. Euh, damay faral di wax naan politiku raay raay nañ ko bàyyi. Mhm. bu dëgg jotee dëgg yàllaa ko moom. Mhm. ki nga xam ne dafa góor góorgóorlul boppam ba taxawal boppam mais bu ko neexoon dem nekk ak njabootam ñu nekk ñu fi di tagg nit a amuñu sax jot bi. Mhm. mais dañuy wax li nga xamante ni ñun moom la ñuy seetlu. ñuy gis li nga xam ne ci côté social bi nga xam ne mi ngi koy taxawee askan yi ndax ñun bokk ci li ñuy seetlu critères yi ñuy seetlu pour ànd ak doomi aadama. ndax nag ku ne xam na ne <laughs> génération positive taxaw Sénégal moom macha allah. kon ci critères yooyu nga xam ne ñun moom la soxla pour ànd ak doomi aadama dañ koo gis ci le président Bougane ba tax ñu ñëw ànd ak moom bu dee ci mbënd mi ma nga cay def dooleem bu dee ci côté social ma nga cay def dooleem te defulul kenn pour nee la après kaa ñu ànd booy seetlu ñii président Bougane di defal ñëpp mhm. amul kenn koo xam ne dañuy naa bokk na coalition gëm sa kon façon bi ngeen bu muy politiquer xëy na dafa bokk la ñeneen ñi ak moo tax sànq ci njëlbéenu leen moom politikul mhm. il n'est mais nag sant yàlla yàlla may na ko ak ñi nga xamante ni dañuy politique waaye nag politique bu civilisé ñi nekk ak moom politique bi nga xamante ni du daal ñuy daal dañuy ñëw gor tànku nit wala pour am leneen donc fi ñu jëm pour répondre sa question xam nañ ne fu metti la ba moo tax dañ koo pare nag ci ko côté bépp donte nag dàq nañ ñu fële xalifa ak ñooñam ñoo ñu dàq ndax xëy na dañ leen déranger alhamdulilah tey nag moo tax ñu tàllal loxo da ngeen jàpp ne <laughs> yeewi askan wi euh, gëm sa bopp le fait que mu nekk ci ñoom arrangé wu leen xëy na arrangé wu leen la grande coalition gëm sa bopp ci boppam dafa am ñu muy dérange xam nga Mohamed mhm. wax naa la ko sànq samay wax suñu borom mooy def lu ko neex lu ko soob mhm. ñun dañuy politique mhm. dañoo mbapat ba agsi fii ñu agsi taxawal suñu parti benn nit lañu am ñaar nit lañu am Sénégal xam nañu benn nit ak ñaar Sénégal xam nañu mais justement est-ce que da ngeen pesewul bu baax sur le poids électoral moo tax ñu leen di kàllkale di leen def noonu. waaw mais ña nga ña nekk foofu te xam nga dafay am li nga xam ne da koy nangu. ñu teg la ko. ndey dimbee am na loo xam ne ku la ko bëggoon teg tayit nga ànd ak sa jom nekk ba lépp ndukumaan doo ko nangu soo ko nangu nanguwu nag da ngay déranger. <laughs> am na ñi nga xam ne nag dañuy bëgg ne man maa nga ca biir nekk nag di war palaato yi. Mm. di défendre leader yi. bokk pour bokk pour bokk rek coalition boo xam ne ñetti nit a koy jiite. Mm. tey ñoom ci seen biir waxtaan. nee ñoom ñett ñooñu nga xam ne ñooy initiateur yi présidence bi ci ñoom lay tourner mm-hmm. il a ko que nit ñi kaas ko ñoom ci seen biir te ki ko njëkk a kaas mooy ki ki yor sa bopp. Mm-hmm. bi mu ko kaasee ci la ñeneen ñi nga xam ne gëm nañu seen bopp ñoom it. Hmm. moo tax ñu war a ñëw fekk si waat gëm sa bopp te génn fële. ndax fiyee seen place. appel nga appel hmm. appel nga appel la hmm. appel la. <laughs> d'accord mais est que problème leader est posé wul parce que ay kuy lañu quand même yu bokk Mbalka. un Khalifa Sall. Ousmane Sonko. xam nga euh, Moustapha Sy. Bougane Gueye Dany gis ci àddina. ay ay problème leadership posé wul problème leadership foo ko gis ci àddina lay am kër gi ngeen nekk sax problème leadership daf fiy mhm. bu ko defee loolu lañ ciy def dama ne ñu waxtaane ko. Hmm. àndum nawle dafa neex. man damay ànd ak diw mais dama koy def àndum nawle indi valeur yi fi maam bàyyi woon. Hmm. ñuy ànd ci jom ci fulla ci fayda ci ngor ci sincérité. ku nekk la mu yéene boppam mu yéene ko moroomam bu ñu ko defoon day neex mais bu fekkee ne demante wuñu fenn ñuy màttante mm-hmm. ñi nga xam ne ñoo ko sos mm-hmm. présidence bi ci ñun lay nekk mm-hmm. maanaam buñ kii bu ñu defee président mu nekk ci tête de coalition bi bu subaa ñu tegaat ko kenn ci ñetti nit coalition gëm sa bopp ne tey duñ ko nangu tey duñ ko nangu suba ñu am ñoo daal day génn ne lii président Bougane Gueye wax loolooy dëgg ñoom it d'accorduñ ko ma ñëw ndey dimbee <laughs> ñu ñëwaat ñu ne léegi li nga xamante ni maanaam lépp loo xam ne dañ ko décider rek maanaam ñoom ñett daal ñoo koy gérer loolu du taxaw Sénégal. d'accord loolu du taxaw Sénégal taxaw mhm. Sénégal. loolu taxul askan wi ñëw askan wi dañ leen ne yeewi lañ ñu te kañ yeewuñu. mais guddi gii ñoom dañ ñoo jeng. léegi nag kan la ñu bëgg a yeewi beneen point d'interrogation kon li askan wi war a poser ci ay questions. Mhm. ci coalition yeewi askan bi ku ñu takk. cette situation du du profité nguur gu fi nekk nga yaakaar opposition bi tënk tënku ci ab euh, coalition jékki-jékki. nit ñi euh, euh, gëm sa bopp génn fa coalition bi est-ce que du profité. Mohamed gëm sa bopp dañoo dàq. <laughs> ñun gëm sa bopp. Ah, na Sénégalais yi xam ne gëm sa bopp. dafa ñëw signé sous réserve. d'accord ne man du ma dem ci lii ñu ne ko yow li nga signé sous réserve arrangé wu ñu kon demal sa yoon parce que tu déranges. d'accord Selbé. léegi nag. bu ñu bëggee ñëw ñu taxaw naan encore une fois de plus gëm sa bopp tóob la waaye tóob du génn. d'accord léegi bu ñu gisee. situation bi am. Mhm. est-ce que nekku leen di renvoyer vraiment une mauvaise image. Mhm. askan wi nga xam ne nag jamono ji wax dëgg yàlla aussi ñu ay coalition. Mhm. gis nañ situation dëkk bi ni mu méttee ñenn ñi ñu ngi ci inondation bi ak cherté de la vie. est-ce que tey sax pouvoir bi bu gisee lii am ci opposition bi du nekk di leen reetaan. waaw moo tax ma ne la dafa am koo xamante ni tey jii mënoo ne opposition ci Sénégal. te tuddoo leen muy le grand maître. xalifa Sall li muy xam ci politique kenn xamu ko le grand maître li muy xam ci politique kenn xamu ko mais dama ne le grand maître moo njëkk a génn. Mhm. nay demee maa ngi dikk ci sa question. d'accord na voilà c'est ça maa ngi ñëw ci sa question dama lay tontu ndax ñun nag duñ daw duñ daw question. donc le grand maître moo njëkk a génn moom laa wax sànq Mouhamed lan moo tax mu génn. Mhm. bu ñu ñëwee tey ku toll ni Khalifa. Khalifa moo waroon na fexe ba téye ñëpp. xalifa moo waroon na waxtaan ak ñëpp bu fekkee ne Sénégal rek moo ko ñor. bu fekkee ne Sénégal rek la bëgg a jubbanti donte moom bu dul dem sax élection te ñun ñi ngi rayante di xeexu xalifa ñu dindi jàjj yi ñu ko takk pour mu mën a dem élection yéen daa mel ni da ngeen mere Khalifa Sall. lu tax parce que Khalifa ngeen waxaloon wala lu tax tudd leen ñeneen ñi. non xam nga looloo moo gis ñun dañuy jàpp ne am na ku ne ca kanam. Mm-hmm. ñun jàpp ne Khalifa moo nekk ci kanam nañu waxante dëgg. Mm-hmm. Sénégal fii mënoo fi teg keneen ku ku mu neex mën nga taxaw wax parce que da ngay ragal ñu saagala ci. parce que aussi moo nekkoon di def démarche. parce ragal sax ñu saa ci réseaux sociaux waaye ñun loolu ñu fekk ñu si ñun amuñu problème boobu <laughs> euh. fii Hmm. dama la ne bu fekkoon na tey grand maître Abdoulaye Wade moo nekk ba léegi ci biir coalition bi ñun bu ñuy wax la grand maître la ñuy wax donte moom moo ñuy yar moom moo ñuy nàmpatal ci politique. d'accord mais tey grand maître nekku fa. tontu ma ku fa nekk xalifa fa nekk. kon tey jii xalifa moom ci ma tontu sa question moo waroon a fexe ba téye ñëpp nan la leen di téye mu indi àndub nawle nan la leen di téye mu waxtaane lépp. lépp li nga xam ne moom xiiroo bi xiiroo bi ak ŋaayoo bi maa la koy wax parce que nag c'est vrai que askan wi euh, ak dëkk bi Macky Sall lañ ko dénk mais opposition tamit dafa am responsabilité ak rôle par exemple indi ay proposition xam nga ndey dimbi xiiroo amul ŋaayoo amul mhm. xiiroo amul ŋaayoo amul xam nga lan moo am nga ñëw ñu bëgg laa tënk ci mbir moo xamante ne arrangé wul sa askan mhm. nga fipp ne du ma ca dem loolu mooy la grande coalition gëm sa bopp léegi waaw ñëwal ñu ngi may signaler temps bi jeex na